doon ah, maalaw sa yére baax na waaw kii wisi la moom laa jël jee woon champion bi fu ngeen jógee nii kon aéroport aéroport yes waaw ana mu ngi ñëw mu def giri comme nii def lu baax sañ sa indaale état boo xamante ni bu ngeen bu ñëwee daal di ngeen ko gis ci kàttanu yàlla ak baax noo ko gisee yow kan man ma booñaa comme nañ ko doon rek moom xam moom xam ngeen xam ngeen booñaa est-ce que ko doon gisee lañ ko war a gisee tamit. nu ko raw ngeen koy gisee bii paa ci kattanu yàlla ak mbaaxam non bi yoon di ngeen ci gis di xam dara bi yoon dañuy curuxu dañuy dañuy curuxu curuxu <laughs> non non après dañuy curuxu curuxu nang rek. asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokki Leewtoo TV Lutte TV ak BP Actu ak nan Sport Vision ah, wala Sport Inter.

waa kër Cheikh Wouldou Maamine yëpp di nuyu kilifa diine yi ak kilifa aada yi di nuyu waa kër sëñ Afia Mbacke moom sëñ Fall di nuyu waa kër sëñ Abdou Karim bu baax a baax di nuyu senegal képp kuy bëggee booy ñaa waa di wax ne tey kontaan naa bu baax la fait que ma ñëw ma génnoon ñëw gis samay nit samay am di jàmm samay xarit ñoo xam ne fu Boy Niang dee ñu dee fa ma gis leen rek kontaan na sant yàlla bu baax a baax. Boy Niang fu mu jógee. waaw France laa jógee yàlla dafa def Japon commencé liggéey bi yeggalee ko France ñibbi si Sénégal. lu tax Japon Japon damay dem Japon. waaw Japon dafa am loo xamante ni moom lañ fa commencé woon après ñu jeexalee ko France. waaw ci loolu ñu ngi nuyu dama fa am koo xamante ni sama xarit la muy ambassadeur Japon bi maa ngi koy nuyu de passage di nuyu sénégalais yi ma fekk foofu yëpp ak doomu Pikine yi ma fekk yëpp ci taxawaay bi ci jàppale bu baax. ma dem fa commencé liggéey bi parce que instant yi amoon benn temps pour dem fenn pour seeti tëkk wala yooyu dañoo demoon pour jo liggéey commencé foofu dem jeexale ko France incha allah ñëw ñibbi Sénégal ci jàmm sant yàlla. léegi euh, Lamine li ma koy laaj mooy moom dafa demoon France Japon di mooy jóge fa dem France hmm. lu waral jàllantu bi noonu jóge bi dem jóge Japon dem France. dafa am ñoo xam xaman France daaloon liggéey sa combat France daaloon liggéeyee sa combat di nuyu ñu ma fa nekkoon di liggéey comme suma xarit bi ñu koy wax Waly. Euh, Waly moom incha allah moom signature bi moo ko indi. loolu moo tax mu ne ma day ànd ak man ñëw. Mhm. ànd ak frère am maa ngi koy nuyu bu baax di ziar ñëpp. waa loolu rek dañuy wane considération bi ñu am ci Boy Niang maa ngi koy nuyu bu baax di leen sant bu baax a baax. fa laa doon liggéey ak ñoom commando sama ay grand ñoom Eric fa laa doon liggéey sa combat. mais Japon dafa am loo xam dañu fa proposé muy liggéey bu bees boo xam dañu ko fa la liggéey. ak chinois yeeg yëpp ñu dem découvrir rek ay la ñu dem découvrir après bu ñu gisee bu ñu fa jëlee dara boole ko li ñu jëlee France indi après ñu mottali. parce que liggéey bi jeexagul. kon yow la war a def France Japon nga ko jëlee ñu jox la commencé dem découvrir xam nga sumo dafa am solo ponkal yooyu di def plus de deux cent et quelques kilos waa nga roofante ñoom am dara après nga dem France xam nga jëli dara ñëwaat fii tamit yeggali noonu la rek. Lamine est-ce que adversaire bi muy bëreel moo waral nga dem Japon dem France dem defi sumo jël ay ponk lu deux cent kilos adversaire moo toll noonu xanaa. non non Boy lu mu war a def ci làmb moo toll noonu pas adversaire bi hmm. mais Boy Niang taxawaayam ci làmb moo waral mu war a liggéey mais pas la dëgër. Hmm. li ma waxoon noonu dëgg la ci man nekku dama ko wax dara yàlla xam na ni sama xel ak sama xol sama vision romb na ko hmm. loolu dëgg la ci man de billaahi nekkul moom champion la xam nga la dëgër ku daan yi nii nii rek Eumeu Sène nii rek Modou Lô yaa ngi dégg daan tafaatin daan Papa Sow kooku champion la champion la nangul nañ ko baax waaye dañuy wax li nga xam ne moo ne si ñun suñu xel ak suñu xol romb na loolu billaay walaay. am na lu ma seetlu ci moom parce que man dama koy wax Lamine nee naa ko Lac de Guiers 2 produit local que damay faral di gis du génn Sénégal mm. te mbër dana génn ñëw te du la maanaam doo ko ndil jafe-jafe mu mel ni ki tamit ak lu ñu la waaye mën a wax est-ce que moom nekkul sportif bu sérieux ci maanaam ci li muy def. ñun tamit dañoo sérieux ci li ñuy def. danaa mos dem taxaw foo xam te ne waru fa gis boo ñaa gis ko fa. non maanaam ci côté maanaam sport maanaam. athlète bi quoi la ñuy waaw loolu nag loolu duñ ko xam léegi. loolu bu Abdou Siflé génn suñu diggante ci la xam kan mooy athlète. Mhm. ak kan moo liggéey waa incha allah. xam nga yow buñ ne sérieux moom mën nañ ne ci yow lañ koy commencé ndax sa carrière yàggul macha allah te gis nañ fi nga atteindre ci so fi nga nekk mais moom maanaam adversaire bi tout temps a wax mhm. boo xam dafa def champion la ñu nangul ko ko bu baax a baax mais ñun suñu gëm-gëm lu ñuy wax suñu gëm-gëm la ñuy waxee ñu ko fenn dañ ko teg ci ay xale lañu ñu ngi ci yoon bi gëm nañ mbir bi am na ñoo xamante ni bëgg nañu ñu jàppale nekk suñu ginnaaw ñu tegu ci yoon bi liggéey la ñu sant ñu ngi ci duñ ci dem ba dee nit ñi bu ñu mënee génne seen xaalis di ko def ci Boy Niang Boy Niang dafay mën nekk ci suuf si nekk ci gannos gi yéeg ci avion yi dem liggéey rek bi mu ñaata combat wala boog Boy Niang bi nga bi ak léegi Lac 2 mooy sax ñaata adversaire ci waa géej waaye waaw ah, bu fekkee dama boole yi arène bi moom mooy sama neuvième combat Guédiawaye. Mbapat yi kan ak kan nga fa daan Mbapat. waaw avant may xuus si Mbapat yi damay wax ne man ak Guédiawaye nekkul esprit d'animosité làmb moo mu boole ak ñoom boo ñaar ba mu daanee Sa Thiès làmbaloog bu nekk xam nga ni boo ñaar Lac de la war a bëreel bu fekkoon Lac de Guiers Pass la dëkk wala feneen foofu laay bëreel mais géej Guédiawaye dëkk làmb moo ñu boole am na loo xamante ni Guédiawaye ak Pikine sorewul bu ko teeree semaine nii rek après bordel lay doon te baaxul ñu ñëpp ñoo bokk ndey bokku baay mais nag Lac de Guiers nag dañuy bëree dañuy xeex dañoo fay dañoo bëree xeex jëflante ci biir géew bi suñ moom defal ñun ndam ñu may ko loxo encouragé ko kon ne suñu yoon loolu rek moo ci ne. géej waay bëri naa fa ay nit. yàlla dogal na du ma ci ne di lim parce que yàgg naa ko wax bëri naa ci bi mooy neuvième combat ak géej waay ñaa suñu moom dafa ñu ndam mais man ñoom yàlla xam na ni ci groupe ñi taxaw nii am na ñoo xam ne géej waay dëkk hmm. ci ñi taxaw nii jërëjëf ma aéroport am ñoo xam géejewaay lañ dëkk. dafa am lu ci doy waar. waa géejewaay nag def nañ coalition. Hmm. arrêté pour arrêté parce que Boy Niang daf leen a dem nañ fi nag ñoom ñëpp kër kër Balla Gaye génn génn ah, noonu suñu borom nag loolu lépp ñoom xam nga dafa am loo xam da ci am solo te mu bëgg ko bu baax mooy lu ñu jàppale jàppale ci géew maa la dageen ñoo fay ne waaw loolu dama ko bëgg bu baax baax mbër boo koy jàppale bind bindum teen rek Ah, suñu père Bourkhane mi lu mu ci jàpp jàpp tamit ci bunt bi lay taxaw ne ma mbër lii ak lii. mais mën am doole nag. Ah, doole bu ñu doole ñu ngi sant yàlla. ñu ngi ak suñu ay mbokk ñu ngi ak suñu am di jàmm ñu ngi waa kër Cheikh Sa Salbu ñu ngi ak waa suñu waa kër maam Cheikh Rim Doumar ñu ngi ak suñu waa kër Sëñ Afia Mbacke ñu ngi ak suñu waa Pikine boobu doole boobu dara ëpp ko. est-ce que seen waa Pikine seen 100 pour cent Pikine ni géej waay di dundee actuellement seen bos a noonu. non 100 boo ko waxee rek Pikine ngay dundal bi quoi xam nga suuxat jëmbat garab koy dundal di ko di ko ko di ko lu tax parce que ñëpp ñoo bokk ndey bokk baay maa ngi doon lu di gis lépp mais ñu ñëpp ñoo far gars dañuy wax ni rek mais ñi nga xamante ne ñooy leader yi Pikine mbëri bu ñu daje woon léegi muy Eumeu Sène Ama Boy Niang Jetli Sokh boo yëpp daal champion yi si Ziza champion yi daal ñëpp daal bu ma bañ a lim rek bu ñu daje woon léegi nga fekk leen ci néeg danga nga naan déedéet ñun ñëpp ñoo bokk ndey bokk ba ay yéene te jaam suñu papa yi ñoo doon ànd loolu yàgg na ama suma frère la Eumeu Sène suma grand frère la ñi ci suma ay frère lañ suma ay nit lañu ku ci am combat ma nga gis ma ak nga ñàkk moo gis dama lay yéene ndam waa Pikine yëpp yéene ndam jàppale la ñun ñëpp ñoo bokk ndey bokk baay dafa am ñoo xamante ni nag wax mu defarul rek day yàq nañu wax luy defar ñu ñëpp ñoo bokk ndey bokk baay Ama li muy jël këram la koy yóbbu papaam sonn na ci làmb Boña papaam sonn na ci làmb Eumeu Sène papaam sonn na ci làmb keneen ak keneen bu papaam ci làmb tamit moom it sonn na ci làmb ñooñu ñëpp dañoo war a am ñu teral suñuy waajur 10 ci côté combat bi lay mujj ndax doo dem te moom du dem man ngeen fa di leewaatoo ba suba. te yow ne nañ yaay xale ci une minute laa ma jeex. foo teg ma ne la dëgër mënoo bëre ci quinze ba vingt minutes amateur yëpp kontaan lamb ma ne bu yàgg am na ay combat yoo xam ne da gis mbër yu bëre vingt minutes xeex bëre combat bu metti ku nekk dem àndoon na ci ñu bëre combat bu netti jël la am. combat bi combat bi yàgg na mais amateur yëpp kontaan nañu. làmb làmb booy dem da ngay waajal làmb booy dem da ngay waajal lépp. ñun waajal nañ pour bëre combat bi ci une seconde waajal nañ pour bëre combat ba temps bi jeex mais ñu ngi ñaan suñu moom defal ñu ndam dañ xeex nañ bëre ñu ngi koy liggéey ak suñu staff la dëgg man ak moom ñoo war a bëre moom champion la am fu mu bëgg a dem man tam am fu mu bëgg a dem te comme li ma doon wax comme li ma doon wax chaque année chaque combat li ma doon wax mooy chaque combat li ma doon wax mooy fi ma jëm sama bakkan laaj teg. léegi mois de juillet mois de juillet dafa am lu leen di xaar waa Pikine yow yaa ngi fi Ama Baldé Tapha Tine ñu ngi wax dina taxaw. ba seen Modou Lo Modou Lo. waaw yooyu yëpp incha allah su suba ci saasafaat bi ñu yeggale dégg nga sama waa ñeent xam nga waaw waaw après lépp nag. maa ngi leen di remercier yéen journalistes yëpp parce que ak nu mu mënta demee da ngeen bàyyi seen temps bàyyi seen jot ñëw yor seen micro taar seen gasoil ñëw. yaa ngi dégg maa leen di remercier ñu ñëpp ay frère la ni ngeen booy ñaan noonu ngeen ma rek mbër yëpp ñu ñëpp ay frère lañu yaa ngi dégg waaw waaw dégg moom maa leen di ko ñaan suñu moom defal ko ndam yaa ngi dégg dafa am loo xam ne il faut mokk fi ama waaw waaw incha allah yàlla yàlla mu taxaw ak jàmm suñu boom defal ko ndam suñu frère la du Pikine la bu bu jugee ñu ñëpp dañuy jug yaa ngi dégg daa loo xam ne foo ma leeral ko yàlla dafa dogal ma seetaan face à face Eumeu Sène Modou Lo ma toog di ko seetaan mu am benn message bu am solo boo xamante ni sunu papa sunu lépp muy Youssou Ndour mu lancé ko xam nga mbër yi bu ñu nit sànnee dara ci làmb muy kàddu bu bon ñëpp dañ koy mettilu waaye tamit bu nit sàddee muy kàddu bu rafet ñu ñëpp dañ ko rafet lu mu lancé appel ñaar ba ñett mu njëkk bi mu ne moom pare na pour jàppale làmb ak képp ku nekk ci moom deuxième bi mu ne bëgg na ñi nga xamante ni ñooy ñoo bëgg làmb ñu jàppale pousser PPV bi di jënd code yi di jàppale. yaa ngi dégg troisième bi mu ne mi ngi lancé appel société nationale yi ne ci dëkk bi yëpp ñu ñëw génne seen xaalis seen budget de communication ñu dugal ko ci làmb loolu muy man muy yow muy yow ku ne ci làmb war nga rafetlu message boobu xam ne message bu am solo la. parce que promoteur yi ay bayar lañ di génne seen xaalis di ko def ci làmb war nañ leen jàppale xaalis bi ñuy génne di ko dugal ci yeneen sport yi nañ ko dugal ci làmb mooy sur sport national ñu jàppale ñu merci beaucoup. ok. oui vous-même. pouvez vous présenter. moi c'est Wally Bey. mon père ma mère française je vis en France. on vous a vu avec Boy Niang tout de suite qu'est-ce que vous représentez pour Boy Niang. faire ses entraînements pour euh, améliorer ses performances, la force, la rapidité et puis euh, visionner les, ses futurs combattants. Mmh. Qu'est-ce que vous faites comme entraînement en France On ouais, fait beaucoup de gréco-romaine, aussi du MMA pour les amener au sol, de la musculation, bien manger, beaucoup de repos. Et voilà. Euh, comment jugez-vous l'état du lutteur Boigna actuellement Machine de guerre. Il est prêt pour le combat. Comparé. <laughs> Il est déjà prêt. Et selon la clé du combat, c'est la lutte pure ou bien la bagarre La bagarre. C'est la bagarre. Vous savez que son adversaire est quand même en bagarre, on l'appelle même le puncher. C'est pour ça qu'il s'est entraîné au niveau boxe avec des internationaux, avec des très grands boxeurs. Il s'est entraîné pour un combat qui va durer ou bien pour un combat rapide Dieu seul sait, mais je pense que ça peut aller vite. Vous avez entendu tous Boignan parler du euh, pay-per-view. Est-ce que vous savez exactement c'est quoi le pay-per-view Oui, oui, c'est euh, les, enfin, les, le combat qui va être transmis euh, à l'étranger. Ok, et, et, et c'est quoi, quoi la valeur ajoutée du pay-per-view en tant que tel dans un sport, vous pratiquez le MMA. Est-ce que le pay-per-view a permis au sport comme le MMA de se développer Bien sûr.

xanaa xam nga. <laughs>